pour affaire bi agsi voilà mais na jege si waaw. wala grand ma jox la muy téye. non il jàpp ci doo jege si waat si jërëjëf. Kanté. waaw mais Julien. yow laa déggoon exclusivité bi. yaa si café yéen laay déglu de ay micro rek laa gis. voilà voilà présentation. Euh, Julien may leen fees mu pare may buur news mu pare. alors c'est le mandataire de la coalition euh, euh, Cheikh Tidiane ah, président bu ñu bëgg defe naa noonu la. moom la de. voilà coalition président bu ñu bëgg ak docteur Cheikh Tidiane alors euh, kooku moo génne tout de suite au conseil constitutionnel ginnaaw euh, euh, vérification de son dossier de parrainage dañuy xaar ndax moom tamit bokk na si ñu dem deuxième tour wala dañu ko daal di valider d'office waaye depuis le matin candidat yu bëri nag dañu à part kii de docteur Boubacar Camara tous les autres candidats rejetés soit passés au deuxième tour maanaam 48 heures pour ñu compléter seeni fiche de parenage alors euh, moom tamit dinañu jox information bi euh, nan la gisee euh, ces vérifications des fiches de parrainage devant le conseil constitutionnel alors comme yéen ñi ñu suivre depuis le matin rek ñu ngi ngi fii. Ousmane Sagna. dama dama tal ndékki. séeréer kañ la xam caméra <laughs> naka moom cool naka waa gàlle ñëpp ci jàmm sant ñu ngi nii rek fu tollu présentez-vous Moi, c'est Julien Sagnan, donc le mandataire national de Dr Chertidian Djei, mm -hmm. Euh, de la coalition président bu Bougnou bëgg mhm. Alors, déposé ngeen seen i euh, parrainage def ngeen vérification lan lañ mën a jàpp si seen vérification yëpp. waaw tam depuis 14 h conseil def nañ suñu vérification yi te ñu ngi sant yàlla mhm. euh, am nañ parrainage yu doy on est passé avec 50 donc. yaakaar naa moom la ñuy woowee premier tour. Euh, donc euh, léegi dañuy may conseil mu liggéey dans le fond du dossier mais pour l' étape de parrainage c' est validé pour le docteur Cheikh Tidiane Dieye euh, et le, le projet que nous portons à travers la coalition président bu ñu bëgg. d' accord am ngeen cinquante mille parrain da ngeen amoon ay rejet tamit wala. waaw naturellement parce que comme liggéeyu si ay système la. des fois dina am ay erreurs parce que nit ñi dañuy liggéey guddeeg ngoon. il euh, y a y a quelques doublons euh, en interne c'est c'est normal euh, du ma ci appesanté wu trop parce que tey on est sorti avec le sourire avec beaucoup de positivité du conseil Euh, donc les erreurs sont normales euh, je maa ngi profité pour encourager équipe bu ci liggéey ça a été un travail très fastidieux mais euh, comme nu ñu koy waxee jot nañ jàll cette étape du parrainage là Oui, depuis, depuis 14h30, euh, nous sommes dans l'enceinte du Conseil constitutionnel. Euh, nous sommes venus euh, dans les opérations de contrôle euh, des parrainages, comme édicté par la loi et comme convoqué par le Conseil constitutionnel. Euh, nous sommes passés euh, devant cette, cette, commission et nous, sommes, nous en sommes avec un résultat positif. Donc, Euh, avec plus de 50 000 parrains, nous passons cette étape du parrainage. Maintenant, nous laissons le, con le Conseil euh, regarder le fond du dossier pour euh, justement euh, les validations euh, in fine. Donc, on a parlé de quelques erreurs, mais comme je l'ai dit, c'est un travail humain qui a été très accablant, très prenant, matin et soir. Donc aujourd'hui, on ne on, on va pas se concentrer sur ça. On en sort avec beaucoup de positivité. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on passe. euh, dès le premier tour, comme vous dites, mhm. euh, euh, vous les journalistes et tout le monde. Donc, euh, nous avons deuxième tour, on n'aura pas de deuxième tour et nous sommes passés au premier tour. Maintenant, nous laissons le Conseil continuer son travail. Mais oui, puisque nous venons de passer les parrainages. Mhm. Après un tirage au sort, après des nuits blanches, on ne peut être que confiant pour, la suite. Le fichier, je ne peux pas trop m'en apesantir parce que Actuellement, on ne l'a pas sous les mains. Nous, on a travaillé sur la base des, des Sénégalais qui ont bien voulu nous parrainer. Il a été comparé à un fichier euh, qui est au niveau du Conseil. Mais moi, je ne l'ai pas. Euh, je pense que mes collaborateurs, il y a le maire Adamassar qui nous a aidés sur ça. On ne l'a pas. Donc, on a travaillé que sur la base des, des données euh, que des Sénégalais ont bien voulu nous confier pour passer cette étape de parrainage. Sanya Julien. yéen eh, eh, eh, mandataire de. alors le maire Adama Sarr Adama Sarr non naa leen bu baax a baax. c'est bon. ma ñëw ah d'accord. monsieur le maire. oui. nga ñëwoon euh, xam ne moom mooy mm. waaw gannaaw ba ma la fay sant yàlla d'abord. julli si yonent bi salallaahu alayhi wa sallam donc euh, ñoo ngi doog a génn si conseil constitutionnel bi et comme ni ko le mandataire Julien waxee donc génne nañ si ak euh, une validation des parrains du docteur Cheikh Tidiane Dieye donc euh, c' est le moment pour nous de remercier en tout cas tous les Sénégalais qui ont voulu nous parrainer la tâche n'a pas été du tout facile on a veillé des nuits durant pour que cette réussite puisse aboutir. Donc nous venons de sortir du Conseil constitutionnel et à ce qui concerne en tout cas les, le parrainage citoyen, docteur Serdi Diandje vient de faire une validation. Par rapport effectivement, comme tout travail humain, il y avait des doublons de notre part. Mais l'essentiel, euh, ce que nous pouvons retenir, c'est que nous avons passé avec plus de 50 000 parrains, oui, alors que le nombre demandé, le nombre requis est de 44 000. Nous sommes passés avec plus de 50 000 parrains. Donc euh, c'est le moment pour nous remercier toutes les équipes qui ont travaillé nuit et jour pour que cette mission puisse euh, aboutir ainsi. ministre ñàkk wax par rapport ak li nga de Bilal Diatta jusqu'à présent muy en détention. waaw lan lañ euh, si li ne mooy xibaar Bilal Diatta. waaw Bilal ñoo ngi koy dégg il va bien donc Kër Massar Sud xaw na am ay jafe-jafe parce que seen maire depuis presque dix mois. moo ngi euh, dans les liens de la détention c'est pas du tout facile en tout cas nous les maires qui sommes dans le nouveau département de Keur Massar nous le soutenons tout le temps et tous les jours et nous pensons que bientôt il sera libre et revenir parmi nous pour que la mission que les populations de Keur Massar Sud lui ont confiée puisse être euh, euh, accomplie. jërëjëf merci beaucoup merci jërëjëf merci euh, le maire de Keur Nord euh, di ki nga xam ne moom mooy Adama Adama Sarr. Misaan euh, euh, mu mel ni euh, le monsieur le maire am na ay kàddu yu mu wax. par rapport ak fichier beeg li ñu mel sant yàlla par rapport ak Cheikh Tidiane Dièye bi nga xam ne moom nangu dañ dossier mais rien n'est officiel sànq.